mbokki jullit yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla boole jéggal di fàttalante ak bokki jullit yépp ne ñun ñi fi jeexitu atum jullit yi fekkoon daaw noo ngi ciy sant yàlla bu baax ci bàyyi gëm nu fi bàyyi bañ fekkee ko ren di ko ñaanaatit mu may na nu fekke ko déwén di ci fàttali nag ne weer yi ñuy romb di ko lim bala ñoo àgg ci ay weer dañuy lim ay guddi ak i bëccëg mooy ab bés di ko lim ba mu matu ba mu mat weer di ko lim ba mu def am at at yi di limu di ci dolli ko dolli ko waat di dolli ko waat seen ñëw googu ak dem nag muy jant bu fenk ak bu so lim gën a tegtale bokk na ca nit man nit mën caa xamee waxtu yu liggéey ak waxtu yu wàcc waaye lam ca gën a mën a jàngate ci xóotal ko mooy saa bu jant fenkee ba soo rek mu xam ne ab digam mi ngi gën di jege si li tax mu mat a seetlu bari na ko waajal mbir ne suba dana ko def te suba fekk ko fi bari na loolu it ku ne na na bàyyi ba suba mu sottal nangam ji te fekk ci yeneen i yoxo lay àggal lay àgge moo tax la suñu borom waxoon nit daf ciy gën di teg bëtam saa su nekk saa bu digg ba agsee dara du ca topp ak lu mu ko mën a fekk yàlla na nu fekk nag ca lam ñu lam ñu war a fekk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne kenn ku nekk ba muy faatu la ko faatu fekk ca lañ koy tàmbalee àtte yàlla nay doon nag la gën moo tax bu am at jàllee nit ki war naa xam ne ay bés yu bare bare bari jàll na buñ jàllee nag jàlluñu noonu rek dem su ko xoolee ci daamar ji mu dugg mu di ko yóbbu dëkk ak dëkk toog bi mu toog du ko wàcc waaye moo koy yóbbu ci dëkk ba mu jëm lu ko waral mooy toog bi moo ne ci liy daw waaye bopp kilomètre yooyu muy romb it mu di ko xamal ne fii dëkk sàngam nanga ma ca des lu mu gën a romb ay bopp di gën di jekk dëkk moom jàpp moo tax adduna mi nga xam ne liñ dugg moom liñ dugg muy dem di ñu yóbbu àllaaxira nañuy bàyyi xel bu baax ne pexem yàqkat def cee dugg léeg-léeg mu naagaloo nit ki ne ko yow bokku goo ñi fi jóge léegi di ko ko won ci anam yu bari say moroom dawuñ dem nëgë walla lii nga fi tàmbali faw yàlla rus la ba nga àggale ko mu door la fay jële su doon loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du fi jóge te bari na ñuy dox ñu ko ëpp ay at fuuf moo tax Seydina Abdullahi ibnu Omar nee na yonent bi mas naa teg yoxoom yu tedd ya ca kaw mbaggam ma moom ne ko kaay ma déy la lii ma lay déy nag koo gis man nga ko wax koo gis nanga ko maa ngi lay déy di la xamal na la àdduna ni ngi fiy dunde ba du la bett mooy da nga fi jàppe sa bopp ab doxandéem doxandéem moom dëkk bu mu mën a nekk lu dëkk ba neex-neex ak lu mu xumb-xumb ñoru ko ku fay jàdd jàll rek la ndax saa su nekk ñu ne ko kañ ngay ñibbi am na ñu koy laaj di ko di ko yëgloo ne dëkkoo fi kon boog bu ñu xoolee lañ jotoon a xam ci ay nit yu ñu doon dégg ak yu ñu xamaloon suñu bopp te nekkatuñu fi dañuy xam ne leen la fi jële dund fi bàyyi wala boog nga jàppee àdduna ni ku jaar ci ab dëkk di jàll rek jaar ci dëkk di jàll moom euh, taax yu kawe ca biir dëkk ba ak rafetaayu dëkk ba bu mu la ñor sow yoon a fa jaar rek moo tax kuñ doon jàpp ku ñu jàppoon fii ci dëkk bi bëgg ko fitnaal année quatre-vingt yi mu yor loo xam ne dañ ko doon tere si jamono yooyu ku ko fi yor bañ ko bëggee sonal dana leen jëmu mu fi kat yoon wee fi jaar dong ma jaar fi ku jàppee noonu adduna nag àdduna du ko bett àdduna du ko mën a nax moo tax moom Abdullahi ibn Omar moom mu wax ne firi xadiisu ci boobu sallallahu alayhi wa te sëriñ bi tënk ko ci ay way waxta ni mu xamsan xubaylal xamsi dane loo gont am ca soxla bul ne naa bàyyi ba suba waaye loo xëyit am ci yitte bul ne naa bàyyi ba ngoon jamono yi ngay am ak wér gaawal balaa wér dee dikk ndax ñoom ñaar ñoo fi nekk ñooy ay ay loo waaye sa dund gi it bul ko sàkkal foo jàpp ne da fa àgg gaawal rek liñ ñu ci war a def nga def ko ci moo tax at mu jàll ci ak dund liy tegtale ne at lu bari la mooy kuñ ne woon dañ koy tëjum at bu fekkee day dégg tëj kese dana dana ko jàppe ne àddunaam fa lay tukkee waaye ki nga xam ne dañ ko caa dig dara moom lu mu war a jot moom it noonu la ko jàppe waaye suñ ko ne woon fekk at nga faatu moom day defe ne suba ñëw at ñëw na ba noppi kon boog lee mu bëgg ak lii mu bañ na jiital li nga xam ne moom la bañ te bakkanam bañ ko taf te gannaawam lay jariñoo njariñ dëgg dëgg dëgg moo tax waajal tontu yi ñuy laaj yi ñuy tontu bis bu ñuy laaj ci frontière lu mat a waajal la lu ko mat la ndax dem yi bari na te gaaw na lool moo tax lu waay doon def ci lu baax na gaaw fas ko yéene ful lu mu lu ko daloon ci ay càggante it na gaaw fexe ba gaaw bàyyi ko te fas yéene bañ caa delluwaat koo xam ne ku tayal la woon ba bu ñuy nodd fajar mu ne naa xaar tuuti ñaare ku ko wax rek biddanti naa xaar tuuti julli des na ku ko wax rek ñaare biddanti waaye ci nga xam ne it da doon day niig niigal niig niigal mooy naa nekk tuuti ah du léegi du léegi du léegi rek ci diggante bi lay dikk dikk yàlla nañu ci yàlla musal kon kenn ku ne war naa xool lim jot a weesu ci dundam lam ca def te mu wóor ko ne amu ca ndigalul suñu borom waaye war naa xool la ca gën a fës yaata waxtoo ngi ni yoo xam ne julliwu ko ca waxtoom ak yoo xam ne daa sëgg rek mu jàll jal nañu ci yàlla musal loolu lépp nag càggante ya la koy far mooy tuub kon bokk buntu tuub lu ubbi ko la loo xam ne at mu jot bunt bi day dañ koy ubbi fëlëngal bunt bu ñu ubbi fëlëngal mooy bunt boo xam ne dañ ko ubbi ba mu ne ŋàpp ñu teg ca loo xam ne du mën a ngelaw du ko mën a delloo si waat muy buntub tuub bu at jàllee na xool at mi lim ci jot a def ak lam ci jot a def lam ci jot a def ndigal muy rëcc ci moom na gaaw tuub te fexe at mii mu dugg la ko daloon daaw bañ koo daw lam ca def ci rëcc rëcc mu fexe ba du ko delluwaat mukk di ko defaat ci ak dundam ndax yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kat na ngeen xam ne seen dund gi ngeen fi amakus néew dañu leen koy laaj ëllëg ëllëg yàlla dana laaj nit ki yu baree baree baree bari waaye ya ca gën a fës bokk na ca at yi nga fi def loo fi jot a def at yi nga def àdduna lan lan nga ca def ba nga doonee ndaw amoon kàttan sa ndaw googee ci loo ko jeexal alal jang fa amoon foo ko jële woon ak loo ca jot a def la nga fa amoon ci xam-xamu ku si néew ana loo ca jëfe ak loo ca gindeek nit su fekkee dund ga lépp dafa jeex ci ay caaxaan danga layoog dund ga ci boppam moom ndax loolu taxutoon ñu jox la ko dañu la ko abaloon rek boo koy delloo daa war a daa war a mel nam ma doon wala mu raw ko ci baax waaye sa ndaw ga it nga xam ne mën nga tëb ay pax di tëb ay bant di tëb ay garab tëb googa it ci loo doon tëb jëm mbaa du fecc mbaa du doxi caaxaan kese kese moom it da nga ko layoo ak ndaw ga ndax yàlla da la ko abaloon ngir nga gaaw tàmm ca jaamu yàlla tàmm ca moytu ba bis boo doonee mag fekk miin nga ko tàmm nga ko sa xol bëgg ko waaye sa alal ji foo ko jële woon ma nga toogoon fa mu toog di xaar jaamu yàlla bu ko jaamoo yàlla nga ne ko fa coppet lu la neex nga def ko ca séetoo ca lu neex yàlla ak lu mu santaane moom it da ngay layoo ak alal ji waaye it xam-xam bi nga amoon it ne guun ak moom moom it danga layoo layoog ñi nga xam ne dañ naan bu ma ko waxoon ma def ko <clears throat> moo tax sëñ bi bind na ci ab téere ne fa kullu man bi ilmihi qad baxila fa innahu qabla al mamati moo tax nit ki mën naa xam boppam ci ñi muy àndal wala ñim dëkkal na xool rek bu ñu noddee jamono ji ñu nodd nu ko nit ña teewloo ba mu àgg teewlu ga mooy fas yéene buy daanu rek mun a ñokket dem waaye day gis ñoo xam ne bu nodd yi dengoonoo dañu naan ci waji kay mënu fee def dara ndax nodd yu bari yi loolu pas-pas bu tàmbalee yàqule yàlla ñu ci yàlla musal am na ñoo xam ne lañuy def lu mën a doon nodd du leen ko yàqal jullit danañ ko yàq ñooñu it war nañoo wàññiku te moo ne yoon woo jaar ci yoon yi moo xam muy mbedd mu ndaw wala mu mag day fees dell ak ñoo jiitleel ñuy dem ak ñoo taseel ñuy dikk fu ñu jëm wuti àdduna kese bokk yi koo xam ne nag saa bu jant bi soo fenkee ba so limub ay weer tàmbalee wàññiku ay fan limub ay weer tàmbalee wàññiku ay fan bu weer wa jeexee li mu ay at tàmbalee jeex di wàññiku yim fi nar a am bis bu set mu di ko gën di jege te moo ne day koo ne yàlla nga dem aljana mu nangu lool bég ca lool wala yow mi nitu aljana nga waaye soo ko ne yàlla nga faatu balaa déwén mu ne ki ma gën a bañ ci nit ñi mooy kii ma wax wax ji te moo ne mënu su dem aljana te faatu amul ba nopp moo tax kon ginnaaw buntu tuub ubbiku na te at jàll na ku ne mën naa xam boppam mën na gën a xam boppam ñépp ku dul yàlla su ko defee mu daal di ubbi buntu tuub dugg ca biir te fas ko yéenee bañ a génnati ba faw yàlla na nu yàlla defal dégg ak topp te yërëmal ñi suñu way dawlu yi nga xam ne ci at mi lañ fi bàyyi ko rawatina ci fan yi nga xam ne moom lañu mujj seenug yaafus yóbbuwu leen ñun ñi fi desit di ko nettali suñu njàmbaar bàyyiwu na fi yàlla ko fekk déwén te luñ ca nar a def ci ay gàllankoor yàlla nañu ko suñu borom wëlbatil muy ak caawartaane gu jëm ci jaamu ko te wéetal ko te tey ko suñu tànk ci ay ndigalam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin